waaw Modou Lo Boy Niang keroog maa ngi ko doon wax sax wax naa ko fii nii gis nga man bu doon maay mbër yi mbër yi nii man ay far làmb sax du samay domaine waaye bu doon maay mbër yi kenn dootu solote affaire yi affaire yi nii ay béjj wala ay petaaw ko yooyu noonu dañ koy bàyyi. Hmm? dañ koy bàyyi bu doon maay mbër yi yi nii parce que gis nga affaire yàlla la gis nga même boo nekkee si loo xam ne sax maanaam dafa araam yàlla bëgg ko sax yàlla gis na. lépp looy def nekk nekkal suñu borom suñu borom mooy lépp gis nga alxuraanu karim bii nii ak kurus gii nii billaahi wallaahi wa taala dara koo foor si yoonu yàlla billaahi wallaahi wa taala lépp looy def lu nekk nga ñaan suñu borom jël si kurus gii ñaan suñu borom dara gënu koo foor gis nga bu doon maay kenn ku si nekk boo dee bëri maanaam da ngay sangutu sangu boo xam ne maanaam sangu cat ngay sangutu mu doon maa mbëri kenn ku ci bëri da ngay bëri maanaam da ngay bëri sangu boo dee sangu da ngay sangu sangu maanaam cat làmmiñ ak def loo xam ne maanaam kenn du la mënal dara si sangat bi nii mais gis nga ay ay téere nii ay kii ay béjjén yeeg ay affaire pitaaw yi nii amul benn njariñ billaahi wallaahi wa billaahi amul benn njariñ yàlla moo gën a yàlla moo gën a wóor lépp looy def lu nekk jiitalal suñu boroom pétard yi ngay gis nii bu doon maa mbëri billaahi du ma ko takk dootuñ ko taqate ay pétard yeeg def nii béjjën def nii def nii parce que man des fois nit day ñëw fii sol ay téere yu dul jeex ay téere mu ñëw fi ma faj ko te sol ay téere taq ba fees mu ñëw fi ma faj ko. amul njariñ yàlla rek moo wóor billaahi nit day ñëw fii taq ba fees ñëw fii ma faj ko billaahi wallaahi wa taalaahi chaque ñu waay loolu moom laa wax ni waaw ngi noonu nga war a xam ni kon yàlla rek moo fi nekk ki nekk si yàlla si yàlla yàlla sag jour day ànd moom boo nekkee si yàlla man gis faj mooy faj nii dama see ànd ak yàlla ndax xam naa ne yàlla mooy faj si li may def te lépp lu may wax dama siy jiital suñu borom ndax xam naa ne yàlla mooy faj man fajuma kon lépp looy def nekk rek jiital suñu borom yeneen yëpp ay caaxaan la man moo doon ngeen bu mbër ni bu ñëwee fii du ma ko jox ay téer du ma ko ay affaire de ñaari sangat laa koy jox billaahi wallaahi wa taala ñaari sangat rek laa koy jox muy sangatu cat sangat sangat boo xam ne maanaam yow maanaam kenn du la mënal dara si biir géew bi ñaar yooyu rek laa lay jox moo doon ngeen bu mbër du ma la jox leneen parce que amul benn njariñ ban njariñ la am tëj fii taq fii pëj amul njariñ ban njariñ la am ba nga koy def boo ñëwee ñu daal la lépp looy def nekk daal jiitalul suñu borom même bu ko suñu borom bëggul sax kon ko kon koy liggéey ah nekk si ba yàlla di la jox leneen ba nga teel koo bàyyi rek ba yàlla di la jox leneen rek ah man de xam.